was his fault? Lagacho sana chuka a inafanyiko hango aliuser jembaro jegwe otri ca Birahim Ndiaye Anaconda 2 ca Tousma Fass la dem ñi ñëpp a ñëw tey soutenir si papa macha allah mu war a Bismi jibi ñëw daan fi Hercule daan fi doomu Parcelles daan fi Sara mosul dégg mu ñëw six combats nee na njaq bu ndaw toj ñaa bu ndaw booy pir caatu waalo ca tuus ma doomu géwél la soxor xale bi jiiri ngoone maa laabe samba mi ci kulindaar ma faali kumba ndaa ma tëx maay maamam balaa ma dégg fukki barak ñaar na duyu bàyyi ma njaay jëlal aka soxor leeral nga jël laa ilaha illallah jibi xale bii nañ ko bàyyi xel kii mooy Baye Ma Ndiaye kii moo dëkk Gunaas kii moo dëkk Mbaare booy lii lan la man xale laa du maag ñii ñii dañ maa yónni yàqam ci ma bàkke alxuraanu karim ñii fan lañ jóge géejawaay Caaroy Pikine guy gi jett gunaas moom sa réew yaa man xale laa dama nekk ci yoon. tey da nga mobiliser est-ce que xam nga li la wax. mooy ndam ndam rek moo. xam nga adversaire bi. xaw ma ko non na général Malika boobu rek doy na. man la dajal man waxuma ay gérer man laa la wax man la am ñooñ dañuy xaar ba bis bis daal ñooñ dañuy dem toog xaar Baye Mandiaye moo xew la tey. xeex wala bëre. lépp laay def. dina gaaw. loolu mi si loxoy yàlla mais lépp laay def. da ngay signé tey sa septième victoire wala. moom la ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal ci bàjj alxuraan kare ñu ngi koy ñaan. ay ca doomu amul ragal waaw. arbitre mu neex de arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangoog bañ sifflé leen di boole. moo leen di tàqale laaj na ay siisam ndax pare nañ Agogo pare nga Baye Mandiaye pare nga arbitre sifflé na génn seen diggante tey samedi di juillet 2021 Sourna Ndiaye production Fallou Ndiaye huitième combat de la soirée Baye Mandiaye ca Waalo Agogo sa xam-xam Birahim Ndiaye lay waree Baye Mandiaye 6 combats 6 victoires mosul dégg mu ñël Agogo jiitu ko ci làmb daan ay ndaanaan eh Agogo dóor na tërëf Agogo lii lan la eh, Baye Mandiaye de bu xeexee yow sa tànk yi la jëm si Agogo loo mën a sàmm sàmmal day ñëw de ma Mandiaye bu kib timis la boo ko dàqee day ñëw waaye Agogo ragalu ko parce que moo ko jiitu ci làmb Agogo Baye Mandiaye Baye Mandiaye jiital gauche Agogo jiital gauche ñaari garde normal combat Ndama ak Ndiol Baye Mandiaye bëgg naa tàkk ci koom dóor na ko laay lay la même na ko dóoraat jël na ko Agogo bañ na jàppante nan Agogo jàppante la doon wër Agogo dafa wow koŋŋ koŋŋ la def <laughs> Baye Mandiaye Agogo dër nan attention fàqat kat appi di am de na jël bi leer Baye Mandiaye ma woon ginnaaw cawaalo ne ko ko andi Bami Ndiaye tibb na ko Agogo bañ Bami Ndiaye am na benn ngemb da ko bëgg mu senn ko jaar ci falan bi nañ xeexuñu Bami Ndiaye bëgg na ko bët Agogo bañ na ko ba ko plaqué faqat ko eh Bami Ndiaye ngi bëre sew o <laughs> ay lay la laa ah man ah, ëppalkat yi kontaan nañ <laughs> ay mbay xamal naa ne nañ bëre sama combat ngi nii tey Fallou Ndiaye <laughs> agago Ibrahim Ndiaye Baye ma Ndiaye igri waalo agago jàpp na Baye ma Ndiaye jàpp na Baye ma Ndiaye songale na ko wër na ko ndomba wër na ko ndomba man koy dóor ay waa dina ko gaañ Baye ma Ndiaye nga koy dóor ma koy dóor dina ko daan ah jeexagul ma ngay door ña ngay door agogo siñoor attention bañ na nee na du daanu wëlbatiku na eh rëccut daa bëgg na rëcc daa wëlbatiku de agogo ndaanaan la agogo Baye Mandiaye jeexagul ma ngi koy door ma koy door oh Baye Mandiaye bëreel te bàyyi door bi door daa metti agogo Baye Mandiaye jeexagul de. da koo bëgg a daan Baye Mandiaye ak Agogo ña ngi ca suuf ma ngi koy dóor ma ngi koy rokkas oh arbitre oh ma ngay door mbaa du ko gaañ ma ngi koy dóor daan na ko daan na ko jëla ma mbooloo ma jibi jëlal mbooloo ma Baye Mandiaye ngi nii sept combat sept victoire. Abdou Mbaye sama mag combat set. Laye Pythagore laa bëgg a bëgg parcelle. doy eh, na ko parcelle. Laye Pythagore dama ko ñaan saas. fonction boobu dama ko saas. ngir yàlla na ma may saas. xale la waaw man damay liggéey. damay liggéey bi laay man damay liggéey. Laye bi Laye Pythagore dama kaa ñaan saas. ngir yàlla na ma may saas. Laye Pythagore. ak kan ak non moom rek laa bëgg may ma sax. 3S Pro. la gàcce saana juka